laa taxlifu bi talaaqi wala bil ataaqi fa innahuma min aymaanil fusaaq bu leen waat ci fase mbaa goreel ndax yooyu yaar dañoo bokk ci ngiñi kàccoor yi fase moom su mënta ñàkk rek ku yebu def ko ne moom sax dagan na waaye yàlla bëgg ko da koo bañ goreel ab jaam nag jamonoy jaam amee moom daa bokk ci ñu sopp te mu bari tuyaaba lool waaye nag li yonante bi aaye mooy jekk di waat ci fase mbaa goreel ni ki jekk di wax naa tey daal kenn mënumaa tax wax nangam mbaa waat naa ci yàlla kenn mënumaa def loo nangam su ma waxee nangam mbaa su ma defee nangam rek saa jaam bi gore na wala sama soxna si fase na lu mel noonu yonante bi da ko aaye woon li téere bi wax nag mooy ku ko def atikat bi war laa yar ndax képp ku toggoo ak mooy rek te téere bi maanaam te binduñu ci téere yi lañ la ci war a def kon atikat ba moo war a seet la mu defee ne yàlla na ca mu def la ko lu may nag dangaa umpale rek moo tax nga def loola waaye umpale rek ku waral su boobaa kon dañ la koy aaya xamal ne la loolu waris koo def waaye kenn du la yar daa am na ñu wax ne ku waat ci fase mbaa goreel duñ jékki-jékki yar ko lu may da koo def aw xewet di ko def ak defaat xam ne kon def ko benn yoon rek du tax ñu yar ko waaye ni téere bi waxee nag moom ku ko def rek ñu daal koy war a yar wala sulya te déetug settee wala kafaarata déet kafaara it illa fil yamini dara muy nekk ci ngiñ billahi ci yàlla xasa tedd na wa jàllate mu màgg aw bi shay'in wala ci dara min asmaa'ihi ci ay turam wa sifaatihi ak ay meloom seete mooy wax insha allahu gannaaw ba nga waatee loolu nag nee na ku waat ci lu mel ne fase gi nga weesu léegi mbaa goreel moom boo ca boolee insha allahu itam du tax mu am njariñ niki bu ne woon waat naa ne tey jii balaa jant beesoo danaa saraxe ab junni su ma ko deful rek sama soxna fase na mbaa sama jaam ba gore na teg ca nag incha allahu bu soobee yàlla doonte incha allahu ja moo ko ci jublu it am na ci yénn it du tax mu am ci njëriñ bu jant bi soxee te saraxewul junni bi rek bu dee soxna saa mu fase bu dee jaam baa mu gore kon seetee balaa am njëriñ rek la mu waat doon loo xam ne alamaan dong moo ca waroon waaye aju ko ci fase mbaa goreel mbaa yu demee noonu loolu moom incha allahu ba muy settee ko du ci am njariñ kafaara mooy alamaan bi nga xam ne moom la ñuy teg ku waat te la mu waat teggiku mu ne moom nag ku waat ci turu yàlla mbaa ci melow yàlla rek ba noppi loola teggiku moom rek moom la ñuy teg alamaan waaye ku waat ci leneen lu mu rëy rëy rëy ni ki kaaba gi mbaa yonante bi itam du tax mi ngiñ lu fasu moom bu yàlla dogal loolu teggiku itam du tax alamaan war ko ca tuub rek te jéglu la war a def wa man istasna koo xam ne settee na it fala kafaarat it kafaara xale yi di ko war ida xasana ndem jublu na al istisna settee ga wa qaal te mu wax ne insha allah ndem soob na yàlla wa wasalaha te mu jokk ko bi yamini ci ngiñam la xam la añ jas mu ta ci njëkk muy noppi wa illaa bu du lool rek lam yen faax mu du ko jariñ daalika loolee settee mooy wax insha allah soo waatee ba noppi teg ci incha allah joo xam ne nga caa jublu ne li may waat kat bu soobee yàlla laa wax xam da nga caa jublu bu rek da nga ko wax ngir barkeelu ndax mën naa nga wax incha allah ngir barkeelu dong te teewul nga dogu ci la nga wax mën naa itam nga tàmm wax incha allah waaye soo waatee ba noppi teg ci ne bu soobee yàlla day incha allah bu loolu teg bi ko itam dara du la ci war ndax dañuy jàpp ne kon daa suubu yàlla te bu soobee yàlla nga waxoon waaye boo waxee incha allah ngir saw laa moo ko tàmm rek. wala ngir barkeelu rek waaye jubluwoo ko feccee ngiñ li kon bu ngi ne tebbi ko rek alamaan daal lay wax day day day aajowoo bi nga waatee nga teg ci incha allah mu sës ca boo waatee ab diir door wax incha allah dañuy jàpp ne kon da ngaa réccu mooy da ngaa jàpp ne nga waatoon doo ko mën rek nga doon cee teg incha allah kon day aajowoo nga teg incha allah bala ngaa noppi moo tax mën a xam la an yas mu tax lu may nag nga sëqat jaarale fi mbaa leneen dogandoo la ba mënu ko caa sële. te saas nga la ko ci sësle moom dana baax waaye boo yeexee incha allahu ci rek moom du am njëriñ wal aymaanu ngi yëpp billahi ci yàlla arbaxatun yeent la fa yaminaani yaari ngiñ tu kaffaraan def na leen kafaara nee na waat ci yàlla man nga ne ñeenti xaaj la am na yaar yoo xam ne moom la nga wax bu deñee da nga war a def alamaan am yaar yoo xam ne la nga wax bu tebbi ko itam alamaan du ca war waxoo moom nag an yaxalifa mooy mu waat billahi ci yàlla ne in faxaltu déet may def aw yaxalifa wala mu waat ne la yaf xalan na faaw dana def yaari waat yi moom boo waatee ne nangam duma ko def ni ki waat naan tey ji duma jëw loolu mooy duma def mbaa nga waat naa def ni ki nga waat ne tey ji balaa jant bi sot naa siyaar ji Tuubaa loolu danaa def la yooyu yaar jàppal lu ci tedd ko rek moom boo ko waatee ci yàlla lu ci tedd ko rek alamaan du war la dañ wax la wa yaminaani yaari ngiñ laatu kafaraan defu leen kafaara am na yaari ngiñ yoo xam ne kafaara du ci am ihdaahuma benn ci ñoom ñaar laxawul yamini mooy neenu ngiñ waxoo moom an yaxalifa moo di mu waat ala shay'in ci dara yazunnuhu lal da koo jort kazalika naka noone fi yaqinihi ci wóoloom nga tumma yetta bayyanu topp dana bir la ñeel ko xilaafuhu lu wuteeg loolee kooku falaa kafaara sa déet kafaara alayhi di ko ca war wala isma te du jaageenu bàkkaar nee na benn bi nga xam ne moom alamaan waru ci mooy laxul yamin mooy nga waat loo xam ne dëgër bopp ak ñeme yàlla taxul nga waat ko dangaa defoon ne loolu dong nga mën a am ni ki ab dongoom réeroon moom mi jàngal alxuraan nga waat ci yàlla ne ko dong baa gis démb ca marché Touba ba sa dong ba dawoona waat ko ci yàlla fekk na booba na nga ko gisee woon daal moom noonu dong nga mën a jàpp waaye gannaaw bañ ko toppee ba topp ko itam ndekete yoo kat du woon moom loolu moom laxul yamin la mooy waat loo xam ne ngaa defee ni noonu rek la demee dogu ca waat ko ci yàlla gannaaw bañ ko toppee demewul noona waaye dëgër bopp baa ñeme yàlla taxula woon a waat ca loola ngaa defoon noonu rek mën a am loolu kafaara waru ca te amoo ca bàkkaar wal uxraa ba ca des nag alxaalif mooy aji giñ mu taam bi dan mbir muy aji tey lil kasi bi ñeel fen wa aw shakkan wala muy aji sikki sàkk ca loola fahuwa moom aasimun aji bakkaaru la wala tu kaffiru tey du mën a far dalika loolee al kaffaara tu kaffaara wala ya tub na tuub rek min dalika ci loolee ilallahi jëm ci yàlla subhanahu sorel naa ko lépp leelul ci moom wa taxalaa te mu kawe ngiñ ba ca des te nga xam ne kafaara waru ca mooy mu waat loo xam ne wóor na ko ne amut mel ne mu taxaw ci kanam yoon waat yàlla ne diwum yi ameelu ma ko nangam te fekk na ameel na ko ko mbaam mu waat ci kanam yoon ne diw mi ameel na ma nangam te fekk wóor na ko ne diw mi ameelu ko dara loolu moom dafa rëy lool lool wala boog la muy waat ci yàlla kat da koy sikki sàkka dong wóoru ko am naam amut waaw kon waat ci yàlla loo xam ne wóor na ko ne amut ak waat ci yàlla loo xam ne da koy sikki sàkka dong foo ko fekk alamaan du ca war waaye dafa rëy rëyaay boo xam ne ëpp na alamaan faaw rek moom daa war a tuub tuub gu sell rëcc ko te dogo ci bañ koo defati mukk mukk bañ a defati lu na mel bokk na ci loolu nag nga waatal nit ne ko danaa nangam te fekk li nga fas ci sa xol mooy loolu doo ko def waaw waat ci danaa def nangam mbaa duma def nangam nga waatul ko nit fekk na booba la nga fas ca xol ba mooy loola moom da nga ko wax nit ci làmmiñ waaye doo ko def waaw loolu bokk na ci bu waatee ne diw mii ameel na ma nangam te fekk diw ameelu ko ko moom day doy waar lool ndax xam nga waatan sax ne démb gis naa sa baay te mu wóor kon démb gisu ko ak lu demee noonu moo xaw a tane ndax lii moom da ci boole fabaale alali jàmbur ba tax sax nee nañ addis ba nee na maniqtataha maa lamri in muslimin bi yaminihi xarama allahu alayhi aljannata wa awjaba lahu nnaar qiila ya rasulallahi wa in bi cheyin yasir qaala wa in siwaakan rawaahul xaakim ba tey wa qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man xalafa xala maalin mri'in muslimin bi xayri xaqihi laqiya allaha wa huwa alayhi xadbaan kooku rawaahul buxaari yonent bi ne ku fexe ba foqor ci alali jullit ci kaw waat dong ci kaw ngi ni rek xamal ne ku def loolu yàlla araamal na ci moom àjjana waral ci moom sawara ñu yonent bi waa xanaa bu dee lu néew néew moom loolu du ko ca dal mu ne donte ab soccu la sax donte ab soccu la sax wax na feneen ne ku waat ba nangu alali jullit tegoo ko fenn bisi booy taseeg yàlla day fekk yàlla mere la moo tax lu mel noonu daal mat naa moytu lool lool ba tey nag ñu seetlu ne lii mu wax ne laxul yamini neenu ngiñ ak ngiñ li ngay door a daaneel léegi muy waat ci loo xam ne wóor na ko ne amut mbaa lu muy sikki sàkk ñu wax ne alamaan waru ca aajo woon a teqale su fekkee ne dafa nekk laxul yamin te aju ci lu wéy ni ki da nga misaaloon ci gis naa sa dong ba démb ñu seet ko demeewul noona mbaa lu teew bu dee yooyu yaar moom te muy laxawul yamin alamaan du ca war waaye bu fekkoon ne luy ñëw la te ñëwagut moom bu demee ba tebbi ko alamaan war ci ni ki diw ameel na bor borom bitig bii nga waatal borom bitig bi ne ko diw moom xam naa ne bis bee mu la wax dana la fay fekk la nga xam ci diw moomu ci kóolute ak it jekku gum jekku fay nga rek moo tax nga waatal borom bitig bi ne ko diw mii bis boobu mu la wax dana la ca fay nga xam ne dëgër bopp mbaa ñeme yàlla dangaa jàpp ne loolu dong nga mën a am leneen mën ta am lu mel noonu bu demee ba tebbi ko faaw alamaan war la ca ndax daa fekk loolu muy luy ñëw ca kanam kon la xawul yamin bu ajoo ci lu wéy wala lu teew alamaan du ca war waaye nag bu ajoo ci luy dëgmal si moom su demee ba tey bi ko alamaan war ca lee ñu tudde al yaminu al xamoosu mooy waat ci loo xam ne wóor na ko ne amut mbaa lu muy sikk sàkk moom itam bu ajoo ci lu wéy ba noppi alamaan du ca war waaye moom bu ajoo ci lu teew a teew mbaa luy dëgmal si alamaan war ca am na ku ko boole ci wenn way daal di wax ne kafir xamuusan bila maadin takunu kaza laxun bi mustaqbilin wala bi mustaqbalin la xayru fam tasila wal kafaaratu kafaara nag fu mu la ware itxaamu xasharati masakina mooy leel fukki miskin ngal muslimina ci jullit ñi ak ahraar ñe di ay gor muddan menn mudd di kul miskin ñel mépp miskin bi muddi nabi ci buddu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neen alamaan bi lay war nag boo ngiñee tam tebbiku bëj njëkk mooy lele fukki miskin ngay leel kenn ku ci ne am mudd mudd nag boo ko jàppee ak liibar mu baax wa ahabu li gën a sopp ilinaa jëm ci nun maa nit an mooy boo xam ne law saare doon te yokkoon na xal mudd ca mudd ma mis la sulu si muddin kem ceeru mudd aw nis si muddin wala genn wàllu mudd wa daalika loolee bi xadri ma ci kem la nga xam ne yakkoonu dana nekk min wasati xaysihim ci digg doomu seen dund fii xalaa in ci ak teeng teeng mooy jafeg dund maanaam seerug dund bi aw ruxsin wala ak yomb yomb mooy yombug dund ba daa wax ne nag bu dee ci ñi nekk ci yoonu Maalik moom buy sañoon buy def alamaan bi du yem rek ci joxe mudd ab liibar waaye day joxe liibar ak genn wàll liibar wala liibar ak ceeru liibar ceeru liibar mooy boo defee liibar ñetti xaaj nag nga jël benn xaaj ba dolli ko ci ab liibar loolu mooy liibar ak ceer mu ne nag dañuy seet ba xam yooyu jamono dund dafa seer wala dafa yomb bu dund seeree mu joxe la gën a yomb te mooy liibar ak ceeru liibar bu dund yombee nag mu joxe la ëpp te mooy liibar ak genn wàll liibar wa man axraja ku génne muddan mudd xalaa kulli xaalin ci mépp mbir aji sa axoo mu doy ko boo fexee ba jox kenn ku ne ab liibar rek sa jaan wàcc moo xam yooyu jamono nag dund daa jafe wala dund daa yomb du ca dara moom la ñu waxoon yokk ca genn wàll liibar mbaa ceeru liibar daa gën rek waaye boo fexee ba jox kenn ku ne ab liibar rek sa jaan wàcc na wa in kasaahum dem bëgg na leen a sàng bëgg na leen wodd kasaahum wodd leen li rajul ñeel na góor ga xamisun bubu wala li mar ati ñeel na jigéen ja xamisun bubu wa ximaarun akuk muuraay bu la neexee nga bàyyi lele gi te jox leen ak col da ngay jox kenn ku ne bi góor mbaa jigéen la mën a jullee bu dee góor boo ko joxee bubu rek mu baax bu dee jigéen faaw nga jox ko bubu akuk muuraay aw xit ku raqabat wala goreelum jaam mu aminat bi aji gëm bu dee jamono yi jaam amee ba tey boo giñee tam tabiku mën ngaa goreelub jaam muy sa alamaan yett yow na ngay tàmbali ci ñax def lele gi ak joxe koddaay bi ak goreel jaam bi fay na ngay jundem abut nag dalika loolee wala itxaaman du caag yéen ak lele fal yasum kon na woor talaatata ayaami ñetti fan yu taabi xunna yooyu di leen toftale fa in farraqa xunna ndem tàqali na leen nag aji sa axoo mu doy ko yett yee nag boo ko tëlee nag waaw kay ngay door a sañ a woor na ñetti fan muy sa alamaan ñetti fan ñi dañoo sopp tegale gi waaye boo ko teqalee bañ leen susalee duñ ko tee doy boo mënee kenn ci yett yee daal moom doo sañ a woor ñetti fan ñi muy sa alamaan bu tëlee nag yett yee yëpp nag waaw kay kon sa alamaan mooy woor ñetti fan wala xoo ñeel na ko añ yu kafira mu kafaara xam lan xim ci njëkk teeñu ga aw baax dafa wala ci gannaaw teeñu ga teeñu mooy tebbikuk la mu waatoon wa baadal xinsi waaye nag gannaaw teeñu ga ahab bu moo gën a sopp ilee naa jëm ci nun malik daa wax ne su waatee tam wóor ko ne li mu waat moom du ko mën faaw day tebbiku rek bu ko neexee daal di génne alamaan ba fa saasa waaye nag mu xaar ba mu wóor ko ne la mu waatoon tebbiku na mu door def alamaan ba daal moom la nu gën a taamu nun ñu nekk ci yoonu malik te sax bu fekkee la mu waat te caa ajan ne bu tebbikoo warlu naa te loolee mu warlu ràññeelu ko su gaawee def loolee mu warlu itam du tee rek saa yu tebbi ko loola waraat ko niki mu ne waat naa ci yàlla tey duma nangam li ma wax nag bu deñee danaa saraxe te ràññeelul la muy saraxe saa yu gaawee saraxe itam ne xam naa li ma wax day deñ du tee saa yu demee ba la mu waxan deñ rek mu war a saraxewaat kon lu demee noonu moom gaawee ga du ci am njariñ wa man nasara ku nisar ay yutixa mu topp allah yàlla fal yutixu na ko topp nisar daal mooy loo xam ne lu yàlla bëgg la waaye waralu ko ci yow yow na nga waral ko ci sa bopp loolu mooy nisar day nuru lu baax nag waaye tàmmuwuñ ko ndax dañuy bañ léeg-léeg boo ko defee da ngay àgg ci warlu gam ko warlu day tax doo ko mën a ñàkk def te sa xol du ja sedd ni ki tey jii boo nisaroon alxames dina nga woor ko mbaa warlu bis bu ne nga saraxe nangam mbaa warlu bis bu ne nga dem ci armeel yi siyaare leen loolu yëpp lu baax la waaye dañuy bañ boo ko xasee warlu rek nga dem ba di ko def def goo xam ne daal sa xol du ca seet doo ca sawar da nga koy def rek mënu ma koo ñàkk def ndax maa ko nisaroon moo tax nisar daal moom taamuwuñ ko kon nag ku nisar lu baax faaw mu war ko na ko sottal wa man nasara ku nisar an yaasiya mu mooy allah yàlla fala yaasihi kon bum ko mooy wala cheyte di dara xale yi di ko war maanaam bu nisareeg mooy moom day jéglu fekk gam fekk lu yàlla aay mu di ku nisar loolu lay jéglu rek waaye def nga du ko war na ko moytoo def sax ni ki nisara sàcc alali jàmbur mbaa naan lu aaye naan mbaa lekk lu aaye lekk mbaa yu demee noonu loolu ëpp naa def wa man nadara ku nisar sadaqata maali xayrihi saraxe alali ku dul moom aw xitqa xabdi xayrihi wala goreel jaamu ku dul moom lam yel sam du ko war shay'un dara maam boo nisaree saraxe alali jaambur dara du la ca war ndax moomoo ko boo nisaree goreel jaamu jaambur noonu la dara du la ca war ndax moomoo ko wa man xaala ku wax ne in faxaltu ndem def naa gaza nangam faxalee kon war na ma nasru kasa nisar nangam wa kasa ak nangam li sey in ñeel dara yat kuruhoo lal da koo tudd min fi ay birri ci jëfi ak topp min salaatin ci julli aw sawmin wala koor aw xajjin wala aj aw humratin wala humra aw sadaqa cheyin wala saraxe dara samaax loolu tudd na ko fa daalika kon loolee yel sa buxu dana ko war in xani sa ndeem teeñu naa mooy ndeem tedd ko naa kamaa yel sa buxu ni ki mu koy wara rek law na torexoo doonte nisaroon na ko mu jarradan mbir moomu lu ñu rafleel min xëy na yéen ci lu ngiñ nee na boo nisaroon nisar boo xam ne da nga ko aj ci ngiñ nga xam ne jekki woo jekki nisar waaye da nga ko àcc su ma nangamee kon nisar naa nangam nit nga waat ne tey daal du ma jëw mukk ci sa làmmiñ wi su ma jëwee sama làmmiñ wi rek nisaral naa yàlla julli téeméeri rakka mbaa woor weeru rajo bii di bëgg a dikk mbaa aji màkka mbaa xumra mbaa saraxe téeméeri junni lu mel noonu nga xam ne da nga koo waat ne bu li ma waat bu tebbi ko nisar naa kenn ci yu baax yii mu ne su boobaa bu fekkee la nga waatoon tebbiku na la nga nisaroon daal lay war bu dee julli gaa mu daal lay war bu dee koor gaa mu daal lay war bu dee aj gaa mbaa xumra gaa mbaa leen mu daal lay war mais ne boo jekki woon jekk nisar ko moom dong te ajoo ko ci ngiñ te wane ne nisar boo aj ci ngiñ moom bu ngiñ la tebbi ko war nisar boo war la mel ne boo jekki woon jekk nisar ko te ajoo ko ci ngiñ wa illam yi sàmmi ndéem tudd li nadri yi ñeel nisaram nga maxrajan benn génnukaay minal ahmaali ci jëf ya fa xale yi kon war na ko kafaaratu yaminin kafaara ngiñ bu fekkee da nga ne waat naa ci yàlla danaa def nangam mbaadu mbaadu ma def nangam tekke ne li ma waat nag bu tebbi ko warlul naa yàlla nisar képp yem ci waaye néewoo nisaral naa yàlla julli mbaa woor mbaa dara xam ne kon ràññeeloo ko kon bu yàlla dogalee la nga waatan tebbi ko alamaan gi ñu rek moo lay war waaye nisar moom dara lu la ca war ndax ràññeeloo ko woon yaa nga wes da nga ko ràññeel kon da nga ràññeeloo ko nag moom da nga ne rek li ma waat bu tebbi ko warlul naa yàlla nisar yem ci kon nga waat bu tebbi ko alamaan rek moo lay war waaye benn nisar du la war wa mën nootale ku nisar maasiyatan ak mooy min qatli nafsin ci rey bakkan aw shib xamarin wala naan sàngara aw shib yi wala nuróog moom aw maa wala loo xam ne laysa bi taaxatin du ak topp wala maasiyatan te du ak mooy falaashe kon di dara xale yi di ko war wala yastaxfir na jég na jéglu rek allah yàlla bu nisaree ak mooy yàlla ni ki rey bakkan mbaa naan sàngara dara waru ko ca waaye war naa jéglu nag ndax loolee yàlla araamal ba noppi moom mu di ko nisara def kon na tuub loola te jéglu bu baax a baax bu nisaree loo xam ne moom dafa dagan rek nag dug topp dug mooy kon loola moom dara waru ko ca te it jéglu sax mel na ne waru ko ca ndax lu dagan moom boo ko nisaree dara waru caa nekk ndax lu dagan sañ ngaa waaxu song def ko kon nag nisar ko dara waru ca wa in xalafa ndeem waat na billahi ci yàlla ne la yaf xalan na dana def maasiyatan ak mooy fal yu kafir na kafaara xan yaminihi walis giñam la wala yaf xal te bu mu def daalika loolee nee na bu waatee ci yàlla ne dana def nangam te lool dig mooy nit mu ne tey jii balaa jant beesoo dana rey nit mbaa dana naan sàngara mbaa dana foqar ci àll jaambur ak yu demee noonu kon na bàyyi jant bi so mu jàpp ne ngi ñoom tebbiku na mu daal def alamaan ba waaye na moytoo def mooy yàlla googee wa in tajara andem dëjërli na wa fa alahoo te mu def ko nag asima kon bakkaaru na wala kafaarata te dit kafaara àll yi di ko war li yem yi nii ngir ngi ñoom la su dëgëree bopp nag wax ne man lu ma wax rek def ko ba laata jant bay so def na la mu waxan ni ki rey nit mbaa naan sàngara yu demee noona ah kon de alamaan du ko war ci miin la ndax la mu waatan tebbikuwut waaye nag gàddu na bàkkaar boo xam ne moom bàyyi woon ngiñ la tebbiku tem def alamaan ba gën na ko fuuf wa man xaala ku wax ne xale ye war na ma ahdullahi kóllëre gi yàlla wa misaaquhu ak wëllëreem fi yaminin ci ngiñ fa xani sa te mu teeñu mooy te mu tebbiku fa xale yi kon war na ko kafaara taani yaari kafaara yene boo waatoon ci ahdullahi ak ci misaaqullahi li ngay li ngay giñ moom lenn la waaye dangaa waat ci ahdullahi waat ci misaaqullahi boole ca nga xam ne ñaari baat ñoo bokk mel ni prix waaye bokkuñu ab yàq kon nee na bu loolu tebbi ko ñaari alamaan moo lay war ndax dañuy jàpp ne ngaa waat ñaari waat ndax ahdoog misaaqu ñoo bokk maanaa waaye bokkuñu ab yàq waaye loolu nee sukkandikoo wuñ ko li sukkandikoo daal mooy boo jëfandikoo woon ñaari baat ñooñu ci ngiñ waaye la ngay giñ moom leen dong la nga wax ci xaatullaay ak misaaqullaay bu teg bi ko itam benn alamaan rek moo lay war waaye ñaar du la ci war walay saxalaaman du war koo xam ne wakkada fedli na alyamina ngiñ la fa karraraha te mu baamu ko fi shay'in ci dara waahid lu di lenn xayru kafaaratin ndare kafaara waahidatin bu di benn ñaar bu fekkoon ne li ngay waat moom leen dong la ñu ki waat naan tey jii waat naa ci yàlla tey ji duma dem marché loolu dong nga waat waaye danga koo waat nag baat ba nga waate nga baamu ko ay yoon nit nga ne wallahi wallahi wallahi muy ñetti yoon nga teg ci tey jii duma dem marché nga xam ne kon li nga waat leen rek la baat ya nga waate moom nga wax rek baamu ko baamu ko ngir feddali kon bu loolu tebbi ko nga dem marché itam benn alamaan rek moo lay war waaye duñ seet nga wax wallahi ñetti yoon ñu ne faaw nga def ñetti kafaar ndax ñetti wallahi nga wax déedéet waaye nag loolu bul ko jaawaleek su fekkoon ne lam waat moom du lenn ni ki daa waat ci yàlla ci benn jataay bi ne du dem marché waat ci benn jataay bi ci yàlla ne du wax ak diw mi waat ci yàlla ne tey jun naan kafe xam ne kon yett yu bokkul la kon yett yooyu la lu ci nekk giñul boppam la lu ca tebbi ko rek alamaan ba daal di koy war duñ ko wax ne ku yett yëpp tebbi ko benn alamaan moo lay war déedéet day mel ne yetti ngiñ ndax yetti yëf la bu ko defee nag kon lu ca tebbi ko rek ak alamaanu boppam wa man xaala ku wax ne ashraktu bokkaale naa billahi ak yàlla aw huwa wala mu ne moom yahudiyun ab yahud la aw nasraniyun ba am nasran la in faala ndeem def na kaza nangam fala shay di dara alayhi di ko war wala yasumuhu du ko war xëyru istixfaar lu dul jéglu rek ku waatan tey ji nangam daal du ma ko def su ma ko defee rek soppi ko naa ab yéefar mbaa soppi ko naa yahood mbaa soppi ko naa nasaraan ba polbiti ko nag def loolee mu waxan koy bu mu tax mu jàppe boppam ab yéefar mbaa yahood mbaa nasaraan na jéggul la mu waxan rek te dara du ko ci wax waaye na jéggul rek ñaan yàlla jéggal ko ndax loo ëppoon naa wax rek waaye ndax dara war ko ja xam nga moom daa wax nangam daal waat naan tey du ma ko def teccam su ma ko defee nag ab yéefar laa mbaa ab yahood laa mbaa ab nasaraan laa ba noppi def loolu nag boole ci su boobaa bu mu tax mu jàppee boppam ab yéefar mbaa yahood mbaa nasaraan déedéet na jéglu rek li wax te doon julli ba mu doonoon rek wa man xarama ko araaman xalaa nafsihi ci boppam shay an dara mimmaa ci la nga xam ne axal la daganal na ko allahu yàlla la wëññal ko fala shay kon di dara xale yi di ko war nee na mboolem li yàlla daganal ci yow sool bëti ko araamal ko ci sa bopp itam du tax mu araam ci yow ndax daganal ak araamal yàlla rek moo ko sañ yow sañoo ko kon nag soo araamal ci yow lekk mbaa naan mbaa leneen lu dagan ci yow it du tax loola araam ci yow illaa fii saw jët yi dara ci soxnaam lu may nag sa soxna moom boo ko araamal sa bopp dañ koy jàpp ñetti fase mooy fa innahaa naka moom taxaru mu dana araam xale yi ci moom illaa ba ànd saw ji ndare ci gannaaw jëkkër sa soxna moom dagal na ci yow waaye boo ne araamal naa saa soxna ci sa bopp nag de ci yoonu maal dañ koy jàpp ne fase nga sa soxna ñetti fase faaw jëkkër jaar fi nag nga doo koo mën a takkaat nee nañu nag bu fekkoon ne day jamono ya jébéer maanaam jaam bu jigéen amee mu waat ne araamal na ci boppam jaam bu jigéenam bii koy day mel na rek ku araamaloon lekk mbaa naan ci boppam du tax jaam bu jigéen ba araam ca moom lu may nag mu tudd araamal ga te jublu ci ak goreel bu fekk da caa jublu ak goreel moom kon jaam bu jigéen ba gore na balaa mën a joteeg moom rek daawul batiku takk ko soxna nga xam ne léegi nekkatul lu may soxna kon foofu am na teqale oman jaxan la ko def maalahu alalam sadaxatan muy sarax aw hadiyan baa muy addiyu aji sa ahoo kon doy ko sulusuwoo ceeram ba nee na ku wax ne sa alal daal def naa ko ci yoonu yàlla mbaa sama alal jëpp def naa ko sarax mbaa def naa ko addiyu dañ koy wax ne ko boo ko defee ñetti xaaj rek def benn bi ci yàlla mën a téye ñaar ñi waaw kooku bu ko defee ñetti xaaj rek bu joxee benn ba rek mu doy mu téye ñaar ña loolu nag wuti wa wuti woon naa bu ràññeeloon ne nangam li def naa ko ci yoonu yàlla doon daa fekk mi mu am loolu dong dong ni ki mu yor kayitu junni ne junni bi def naa ko ci yoonu yàlla ni ki saraxe naa ko boobu bu fekkoon mu yor junni ba kese kese amul leneen tam du sañ a def junni ba ñetti xaaj di joxe benn xaaj bi junni bépp lay joxe waaye nag su fekkee ràññeelul na daa jékki-jékki rek ne sama alal jëpp def naa ko ci yoonu yàlla ni ki sarax ba addiyu kon moom bu ko defee ñetti xaaj rek joxe benn ba mu doy wa man xalafa ku waat bi naxari wala dihi ci loj doomam fa in zakara dem fàttaliku na maqaama ibrahima xisab sunu ibrahim ahdaamu addiyu addin ab addiyu yudbahu moom def na ko rendi ji màkkate ji màkka watu ci siwoote dana ko doy shaatun ab gàtt ku waat ne nangam duma ko def mbaa nangam danaa ko def teg ca ne su ma ko defee danaa rendi sama doom mbaa danaa loj sama doom bu fekkee xelam daa dem ci ba ibrahima di bëgg a rendi ismaahil ngir jaamoo ko yàlla te yàlla jote ismaahil am xaaf bu fekkee xelam daa dem ca loola nga xam ne kon daa mel ne moom daay yéene ak jaamu yàlla la ko ibrahima yéene woon kon lam waat bu tebbi ko addi yu daal di koy war daa wax ne nag addiyu ma ab gàtt doy na ci waaye bu fekkee ne mën na gëleem ba aw nag daa ñu sib mu def ko gàtt waaye lam yaddukur ndéem fàttalikuwut nag almaqaama xisab ibrahim ba fala shay di dara xale yi di ko war moom yi waat ci rendi doomam mbaa loj doomam bu fekkee xelam nekkul ci jaamu yàlla ca rendi ga mbaa loj ga na ko ibrahima doon defee ca ismail xelam demul ca loola xanaa moom da di am kàccoor rek yéenewul dara ca loj ga mbaa rendi ga mbaa lam ci yéene sax mooy ret